asalaamaaleykum mbokki géewul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci géewul TV ak émission bi ñu wax gindi askan wi tey nag ñu ngi ciy dalal uh, koo xam ne mi ngi nekk ci commune Ngourane di adjoint maire bu Ngourane Maodo Diop ñu gën ko xam ci As As ñu ngi lay nuyu. <coughs> Euh, maa ngi lay fay alfa mm-hmm. di la remercier ci invitation bi. Mm-hmm. di nuyu askan bépp di déglu di nuyu ñi nga xam ñu ngi seetaan wala ñi ngi déglu. di ñaan yalla émission bi bismillah rahmaan rahim gën ci alhamdullahi rabbil alamin mm-hmm. lepp luñ fi waxtane yalla nek nekk askan bi mm-hmm. as euh, ñu dugg ci waxtane wi directement ñoo bëggoon xam kan moy as euh, jërëjëf alpha man ma ngi tuddu elage gay mm-hmm. ñu gën ma xam ci turu as gay ma dëkk jokul fal jokul malik kumba do jokul, magge jokul yaro jokul dëkk jokul, euh, man ma ngi dugg primaire Je suis entré en 1 fii en 36e en sixième après yóbbu ma Kébémer ma def 6 sixième ba terminal J'ai ngi am bac en 2002 bac S2 ni orienté ma université Cheikh Anta Diop faculté des sciences économiques et de gestion def fait fa 4 ans am sama maîtrise en analyse et politique économique bi ma à l'intérieur de l'université il y a une école de formation des professeurs d'économie j'ai le concours Bob. pareil j'ai fait une formation là-bas pendant deux ans donc ce qui me fait au total bac plus 6 après je me suis sorti avec mon KSTP certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire technique et professionnel comme professeur d'économie générale je suis affecté au lycée technique de Thiès depuis 2008 Moi, il faut servir fofou. en même temps je suis le premier adjoint au maire de la commune de

j'ai vu le maire Maude Diop ma waxtaan ak moom te maa au passage bi je waxtaanee monsieur le maire man de bu pas contribuer au développement de ma localité. parce que ma ne ko non seulement war nga amal njariñ sa bop, mais war nga amal aussi sa askan war na exactement ce que lay jariñ. loolu moo ma dugal ci politique en 2014. et mon allié ou bien son patron ci politique. c'est monsieur Maodo Diop l'actuel maire de la commune de Goran. waaw muy muy muy Maodo Diop di maire Nguraan mhm. ñu gis ngay adjoint mhm. euh, ñuy jëm digmal loo xam ne muy élection locale yi ñu jëm mhm. ñu nga nekk ci moom jege ko loolu euh, naka ngeen di waajal li nga xam ne mooy élection yi jëm nii voilà Alpha comme ni ñu waajale élection yi passé yëpp parce que ñun depuis 2014 bi ma commencé ànd ak moom amul benn élection boo xam ne ni def nañ ko dans la commune te gañewuñ ko pratiquement ni dans daan waajal élection yooyu noonu la ni waajal élection yi rek mhm. ñun nak on n'a pas besoin d'organiser si vous voulez certaines manifestations mhm. parce que ñun xam nañ suñu population mhm. réerewuñ suñu population nous sommes aussi sur place ñi ngi waxtaan ak ñom ñi ngi nemmente ak ñom té comme jéem nañ ci révision liste électorale yi passé def nañ ci aussi liñ ci wara a def lépp taxaway nañ taxaway bu mat motax tax élection ni ngui koy waajale comme ni daan waajale yenn élection yi mm-hmm. mais y a des stratégies yo xamné ni bo amé say adversaire mm-hmm. wala nga am ñeneen yo xamné ni peut-être bokku leen gis-gis mm-hmm. mënoo ko dévoiler publiquement mais ñi doon waajale suñu élection yi passé nga xamné ni élection yi fi jaar muy élection présidentielle muy élection législative muy élection euh, référendum bi muy élection si vous voulez communale bi fi aussi élection yi yëpp ni ñu def ba gagner ko non la ni waajale pour def pour gagner élection yi ensuite ñu ngi def suñu massification si vous voulez suñu alliance si vous voulez pour kii suñu mouvance bi si mouvance présidentielle mm-hmm. ci il y a beaucoup d'adhérents yo xamné nekul ne ci ñun mais aussi ñi ngi ci ñun mais ñun on travaille en catimini on n'a pas besoin si vous voulez de le faire on le fait si vous voulez sans tambour ni trompette. Mm-hmm. ñun de wax deug yalla mm-hmm. ñi ngi def li ñu wara def. di waxtaan population di nemmeeku population bi. à chaque fois aussi ñi ngi def le tout aussi pour les rencontrer. kenn ku ci boo amee doléance ñu toog dalal la waxtaan ak yow. yéen daal seen liggéey dañ koy liggéey ci suuf daal fësalu leen ko. effectivement mm-hmm. waaye ñu gis ne candidat yi ñu ngi présenté wu. ku nekk mm-hmm. wane boppam. Mm-hmm. Euh, comme li nga wax ci seen parcours ne ñun nangam te dafa mel ne am confiance ci li ngeen di liggéey. kon lan moo tax nag ngeen tekkaaral jéemu leen a wane seen candidat jéemu leen def dara rek. lan moo waral loolu. voilà d' loolu a mm. a il y a quarante villages. amul benn village boo xam ne ni amul defuñu fa benn réalisation. moo tax jëratul ñu koy présenter nit ñi. kenn ku ne xam na ni il est tellement accessible. il est disponible. lépp caractéristique yoo xool ci leader. mu ngi ci Maodo Diop. man wax dëgg yàlla. boo gisee man nangu ànd ak moom topp ci ginnaaw. wax dëgg yàlla dama xam ne kii kilifa la. te li may amoon ci yaakaar lépp caractéristique yooyu yëpp gis naa ko ci moom. waaw moo tax jéem ñu tudd ay mbumbaay mm. jéem ñu def lii jéem mm. def lii parce que ñun xam nañ exactement mm. ki ñu àndal xam nañ exactement bilan bi ñu def xam nañ exactement aussi fi ñu jëme askan wi ak fan féete askan wi ak maanaam confiance bi nga xam ne jox nañ ko askan bi ak confiance bi ñu askan bi jox. ndax ndax ndax ndax as bu ngeen tekka tekkalaay rek bàyyi gars yi wane seen bopp. Mhm. ñuy dem fu ne ñu dugg fa di seen bopp yéen ngeen bëgg am jàpp confiance. Mhm. ci ci ñun euh, am nañu nangam wala am nañu lii. Mhm. te te jéemu leen def comme ñoom. ndax loolu dañuy handicap ci seen diggante seen liggéey. voilà du jàpp confiance. c'est que problème bi mooy waxtu liggéey dafa am waxtu politique am. actuellement ñun jàpp na ni dugguñ ci waxtu politique. bu waxtu politique jotee dana wàcc sur le terrain. organiser une manifestation def comme ni ko ñep defee. Mm. mais actuellement xam waxtu liggéey ci lañ toll. dañu mm. wax dëgg yalla mm. comme que dañu denk liñu gënal moy liñu ñu yéene mooy ñu def suñu liggéey. ba liggéey bi mat bu ñu ba liggéey bi mat bu ñu ba waxtu politique ñu wacc sur le terrain politique ànd ak politique. mais liñ def ñu koy def ci suuf. on est en train de massifier notre mouvement. on est en train si vous voulez de collaborer avec toute la population. on est en train si vous voulez d'organiser si vous voulez avec les jeunes et cetera. mais gars yi peut être xayna ñom neneen lañu gisee mais ñun aussi ñi ngi waxtaan ak suñu militant ñi ngi def ak ñom ñi ngi diisoo ak ñom motax ñun comme ko waxtu liggéey lañ toll ñun dañuy liggéey buñu démé ba toll ci waxtu politique dañu wacc ci le terrain politique ko ñëpp ndax ndax jàpp ngeen né dana yomb ci yeen ren ndax ndax bo doon xol euh, nim mu yomb ci yeen bu ngeen fu ngeen dem dekk bu ngeen dem rek mhm. ma ngi ngeen di waxal mhm. ah ma ngi jox leen cadeau jox xalé yi nañu kàddu léegi nag kàddu dafa melni xalé xale ko yor dafa melni xalé dañ leen won ginnaw and euh, ak ki nga xam moy Cheikh Ngourane voilà euh, merci Alpha

et Nelson Mandela day faral mm-hmm. une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve mm-hmm. une action qui ne découle pas d'une vision n'est que du temps perdu mm-hmm. et une vision qui s'accompagne d'action peut changer le monde Nous, madame non la ñuy doxalee suñuy yëngu noonu la gis-gis voilà mais ñun nekkuñu fi nan tay dañuy def lii suba dañuy def lee gannaaw suba dañuy organiser lii gannaaw suba dañuy organiser li ñun waxtu liggéey ci lañ toll motax actuellement on est en train s'y voler de travailler on est en train, si vous voulez, de parler, de sensibiliser la population, mm. parce parce qu'il y a des gens qui tiennent des discours, en mm. réalité, mm. ça ne tient pas pour les sensibiliser les ci mais on n'a pas besoin si vous voulez d'organiser certaines manifestations. waaw ñu dégg ci sa biir wax ci wàllu liggéey. Mhm. mu mel ne dañ a pour ngeen di liggéey. Mhm. te kuy liggéey war ngaa wane li ngeen liggéey lu mu doon. Mhm. Euh, te ba ngeen fi toogee war na yàgg. Euh, lan ngeen réaliser ba xam ne tey nañ ci dut baaram ne li yéen ko def ci seen maire. voilà merci à vous question yi ma posé. bi ma dalee commencer, ba léegi question bi moo nekk question bi ma gën bi ma gën a neex ci question yi ma posé. voilà parce que xam nga man bi may dugg ci politique en 2014. dama ne woon monsieur le maire on va essayer si vous voulez de parler avec la population de bu ñu dem. dañuy jox le responsable des jeunes mu jël parole wax. jël le chef de village mu wax. jël le responsable des femmes ñu wax. ma jël sama cahier noté. bi ñu paree. ci leen ficeler un programme. na programme bi kët lii la askan bi soxla. léegi on va essayer maintenant de réaliser ce programme là. ñun comme mm-hmm. je suis économiste de formation. Mm-hmm. ñun exactement nan mettre sur pied des stratégies. Mm-hmm. nan matérialiser des idées. Puis, ñu nous waxtaan ñu réunion. Nous kon volet yi ak li askan bi bëgg. ci premier ci éducation. parce que euh, Joseph Kizerbo, il est généralement admis que le niveau de développement d'un pays est mm-hmm. étroitement lié à son niveau d'instruction au point même d'en dépendre. Mm-hmm. ce qui veut dire que nous askan deug deug développer développé. Mm-hmm. éducation. Moy njàng wala njàng. Djang, mi. def nañ ci ay djégo yu am solo. yan djégo la. premier djégo. école primaire yi fi dans la commune. on a réussi à construire des murs de clôture. clôture nan école Médina Tall Kër clôture nan école Mbarom Diop. clôture nan école Jokkul Fall. clôture école Ngay collecteur nañ école Mbakhaye ci ñaax Fall. Mm. mooy mur de clôture. Mm. biñ ci jógee. Mm. con am na ay salle de classe yuñ réaliser yuñ construire. premier constru CM bu Nguraan. construire nañ fa ñaari salle de classe te pourtant CM bi. dépendre ci ñun parce que ci conseil départemental la dépendre. mais on a réussi à construire là deux salles de classe. construire nañ benn salle de classe ci FA bu Nguraan. construire nañ benn salle de classe Ngay Jawar. construire nañ benn salle de classe Mm-hmm. Réhabiliter nan ay salle de classe salle de classe yo xam dafa bu ci ñaax ñu réaliser ko. Mm-hmm. fourniture scolaire. Mm-hmm. chaque année. depuis 2014. dama ni maire. un responsable qui est chargé de l'éducation. président commission éducation. il n'a qu'à s'adresser aux responsables de zone pour chaque année. vous demander les effectifs. vous demander effectifs Qui lancer la commande. Ah, depuis 2014. chaque année on donne suffisamment de fournitures scolaires. et là je défie quiconque. mais mais mais mais fournitures mais dégager des fonds de dotation et des fonds de concours. voilà fonds mais ne non question maire fonctionner on a un budget. Mm. il élaborer un budget. Mm dañoo jël éducation ne ko lii lañ koy jox mm-hmm. jox santé lii jox lii ainsi de suite léegi fonds yi état day jox dañ leen a joxe rek voilà da nga may dégg fonds yi état bu ñu neexoon tey bu ñu joxe am na ñoo xam ne nii mm-hmm. ñoom xam nañ éducation mm-hmm. ça dépend de c'est une compétence transférée mais pourtant en réalité jéem ñoo joxe ay fournitures scolaire mais ñun bi ñu ko joxee fournitures scolaire chaque année danañ def de telle sorte que ni établissement yi dépendent ci ñun ñëpp danañ jox élèves yi de telle sorte que ni parent d'élève bu nekk boo dee jënd peut saak ngay jëndal sa élève. mais mais mais xam nga as ah, loolu mooy seen loolu mooy rôle mhm. mais a la. Alpha waaw d'accord naa ak yow. li waxagul lépp ci ci bi la jógee. Alpha ba tey comprendre parce que moyen boppam mm. mooy budget commune

suffisamment de cahiers, mm-hmm. suffisamment de protège mm-hmm. suffisamment si vous voulez mm-hmm. d'ardoise etc. de telle sorte que les parents, les bu que ça 44 villages 40 villages 40 villages 40 villages établissement dépend parce que buñ ko le président de la commission d'éducation moyen le directeur école yep ñu indaale sen effectif. ñu jox leen na leen ñaata ngeen am jox nombre de cahiers, mm-hmm. jox nombre de protèges. donner dem ba jox ay fiches. aux enseignants. pour préparation cette année. Mm-hmm. on a prévu si vous voulez. Mm-hmm. de donner 3,5 millions. pour fourniture scolaire. déjà c'est une commande parce que pareil. bien vrai que ni nawet bi demeegul noonu. dara ñorul xam nga yaa ngi ñëw ci loo xam ne defagu leen ko man li ngeen def laa la laaj. voilà lii lépp lañ ko réaliser. mais lii li ma xamul ci réalisation ci lu wàllu maire yow wax wax kay ak bii a nga ma fi wax. voilà ak ak ak ak miir yoo xam ne ku miiree école. d'accord ci ci ba ngeen toogee ba léegi loolu ngeen fi réalisé gul ci loo xam ne askan yi dénk nañ leen ko ci 40 villages yi nga xam ne seq ngeen ko d' accord Alpha maa ngi ñëw pareeguma ah, ah. wax naa mur de clôture waaw wax naa salle de classe une construire waaw wax naa la salle de classe une réhabilité mm-hmm. wax naa fourniture scolaire mm-hmm. am na école yoo xam ne nii mm-hmm. amuñu woon ay toilettes mais on a réussi à avoir des partenaires de telle sorte que ni école yooyu tabax leen toilettes. Mm-hmm. ta xam nga ni toilette mm-hmm. école bu amul. Mm-hmm. école boobu pratiquement. ko ñaata ñaata école ngeen ko def. Médina Tall defal nañ ko ko. defal ko Loyenne Sylla. te guñ parce que amna yeen école yo xamni amuñu ko. te daan def de telle sorte que moy daan ci ñëwaat ci kanam. pour lijjanti école yooyu pour ñu am ay toilettes. am li yeen école yëpp di am. risographie. problème bi moy pratiquement avec euh, la nouvelle méthode là. apprentissage légui li poser problème moy la reprographie. Hmm. élèves vu pratiquement ...c'est une teste, c'est une composition hmm. on donne si vous voulez des polycopes. nous hmm. allons remplir wala nous allons cocher. on a réussi à acheter ...une risographie. pour école au niveau du centre parce que responsable zone bi ça se situe au niveau de N'Gourade... Nous avons ko une risographie ah. ensuite ...le CEM dépend de nous... dépendre pourtant la réalisation de ce sem est passée par entre nos mains. en plus on a réussi aussi à électrifier le CM. pourtant nous avons un conseil départemental mais du fait que dans notre commune on a un CM. Mm-hmm. on est obligé si vous voulez parfois. ñu jël lu ñu war man ak luñ mënul lépp jàppale parce que suñu dom ñofay jang suñu rak ñofay jang suñu jarbat ñofay jang ñoo buñu jàng. qui mm-hmm. mm-hmm. L'éducation, éducation. santé aussi mais notre problème majeur dina ci ñew c'est que le chef lieu de la commune. est un peu excentré. fi nek la motax on a un seul poste de santé. Mm-hmm. mais un grand mm-hmm. mais poste de santé chaque année danañ ko une dotation de médicaments. Mm-hmm. au début c'était 1,5 million. mais maintenant dem nañ 2 millions on ko chaque année des médicaments pour diminuer le poste de santé ensuite ensuite a na case de santé qui est en Fall sama dëkk. réhabilité à hauteur si vous voulez. mais mais mais as euh, poste de santé bi nekk Nguraan. oui kooku doxul gam dox gam war a dox. bu fekkoon yéen a ngi ciy def ay jéego. lu war ci sa diggante ak ñooñu. Mhm. yaakaar naa war na mën a gën a. jéego war na mën a gën a yaatu. voilà boo ma déggee sama explication. Mhm. ma ni la mhm. poste santé bi li tax doxul.

réhabilité leen case santé bu jokkul. Mm. bu jokkul fa réhabilité nañ ko. Mm. boo ñëwee ci action sociale. Mm. Euh, xam nga ku ni doomu aadama. ni ndox. ndox dafa am solo ci dundu doomu adama boo jëlee cëlbati gumba la. mu nekkoon dëkk boo xam dafa nekk commune Ngourane. mais dafa gën a dugg ci biir commune Thiolok. on a réussi si vous yóbbu fa ndox bi. boo cëlbati c'est à 2 kilomètres. ñun ñoo def adduction d'eau boobu à 2 kilomètres. ensuite forage bu Djinyax. ils avaient de sérieux problèmes au début. Mm -hmm. On a réussi aussi à acheter un transformateur mhm. pour alimenter le forage de Ngoura, de, de Niger. Et si on comme nous nous mhm. bay la mhm. ak sàmm te ku ni bay xalaat ni jigéen ñi suñu mbokku jigen ni war nañu soq war nañu wal et cetera boo dee on a réussi à donner 14 moulins à mille dëkk yi ma ko lim man waaw damay wax mm. damay tur tur dëkk yi mm. laal sama baaraam parce que problème bi mooy mm. bëgguma a wax nii rek nit ñi ne non daa wax li daa wax li gën askan wi loolu la rek dañuy tudd bi dëkk bi ñu mën a dëkk yi yóbbu machine yi paaleen mboobu looyeen sila xaaji sugu xaaji géy cëlbati masar sëy ngéen géy cekkeen sekk kër gumba jóob mbarom jóob mbisis dia njaayeen bangoy sanc jaraaf mbakar bu nguraan boo dee xool 14 moulins à 1000 distribuer leen ko ci commune bi. ci commune bi voilà. Euh, machine yooyu ba léegi ñu ngi ñu fonctionné. ñu ngi fonctionné ñu ngi fonctionné. Hmm. voilà boo jëlee décortiqueuse arachide mooy machine yi xolli gerte. xolli gerte waaw on a réussi si vous voulez à octroyer cinq. Hmm. décortiqueuses dans la commune. Hmm. muy Xaaji Gueye. Mbarom Diop Thielbati Jokkul Fall Mérina Tall. mais boo xoolee aussi dëkk yooyu ñi tax ñu def ko. dañuy xool dëkk boo xam ne ni dafa gën a jege ak benn dëkk. ñu boole ñaari dëkk et cetera mais du comme que mënuñu octroyer pour ñëpp. machine décortiqueuse yooyu. comme supposons bu indee mbaroom ne waa Paline ak waa Kouré yéen kat da di dépendre ci mbaroom ainsi de suite est-ce que machine yi jëlu leen ko pour politique ndax li ma gis nga waxee ko fii mhm. da lim mbaroom mhm. mbaroom fa la monsieur dëkk mhm. nga lim jokkul fall yow yaay adjoint fa ngeen dëkk te jox ngeen leen ndax da ngeen jël machine pour pour campagne ko politique ko non non non non ñun noonu parce que boo dee xool machine les moulins à mil yi bu dañuy doxale politiquement mm. kon dañuy ñëk octroi, wala mm. mais ñun dañuy à chaque fois les besoins des populations wala la position du village mm. dëkk bi bu nekké am ñaari dëkk yu ko dëkk yu bu yow ci dëkk ñaari dëkk bu ko ñu gestion exactement même si dé xol ñi les dañuy jël ci dëkk bi jël ci dëkk bi jël ci dëkk bi bu ko gérer exactement même si nous xol des presses à huile moy machine yi ségal ségal avec euh, moy cri yu bees mm. réussir nañ aussi à trois 5 machines. Mm. te village yooyu dañuy def village bu ñu yóbbu. Mm. décortiqueuse bi yan village ngeen yóbbu machine yi machine yoy machine yoy dañoo jël dañuy xol village bu ñu yóbbu décortiqueuse bi. wal ci presse à huile bi. bu ko defee bu ñu comme supposons ñu indi cekkeen. ñu ni yéen waa nag yéen waa Ndàngoor yéen ko bokk. ak yéen ak waa Wërsëg. ak wa cekkeen. ñu yóbbu foofu décortiqueuse bi. yóbbu presse à huile. ainsi de suite def ko Mbaro. def ko jokul def ko yeneen dekk non lañ ko doxalee bo dee xol toujours action sociale. Mm-hmm. Euh, magasin de stockage. Mm-hmm. jigéen ñi boo dee xool C'est seen problème majeur. Mm-hmm. Moi dañu am seen i bagage am seen mouvement am seen association. légui fan lañ denc seen bagage baykat yi aussi buñ bayé ba paré fan lañ stocker stocké seen jiw bi. pour bañ mu yàq wala dara bañ ko lal motax on a réussi aussi à. te maire moy jël des moyens personnels. affiliés si vous voulez ces équipes là chaque année. Euh,

mais le reste bo dee affiliation maire a des moyens personnels mm-hmm. des moyens personnels mm-hmm. affilier mm-hmm. toutes les équipes chaque année il le fait au début c'était informel ay mo ensuite le euh, terrain municipal y un terrain pour xamné ni aménagé nañ ko moy terrain gay pratiquement tournoi yépp chaque année voilà

dans la gouvernance locale mhm. moi, si vous voulez les litiges fonciers mhm. nous avons yàlla de nañu mhm. depuis le début 2014 ba léegi kenn a problème dans la commune de Ngourane kenn a dégg ñu mètre carré dans la commune de Ngourane pourtant les villages là qui sont à côté de la route nationale à commencer par Kër Kermakari, etc., de Dieu les partenaires les propositions yi ñuy def maire bu doon que ne nit pas, la ce ne au nom de Dieu il est devenu actuellement multimilliardaire. Mm. mais xam na ni askan ñoo ko tek mm. te lepp lo xam ne askan mi ñoko mom mom duko fokarti. ko foqarti. Mm. te xam na ni ala kulli haalin yàlla moo ko fi tek tay suba da fi moo Motax wax deug Yalla. franchement problème nous moom mosuñu ko am dans la commune depuis 2014. ensuite état civil bi. Bo dé xol wax deug Yalla. même opposition même nos adversaires politiques. xam ni c'est tellement accessible. kayit boo soxla. ak heure boko soxla soxlaa le maire il est disponible le secrétaire municipal il est disponible wax y a sont des gens qui xam ne seen liggéey ni ñu koy fait. man masha'allah, man bof nee naa wax accessibilité bi population bi am. ci état civil bi je trop trop trop trop nga gis ko ci ci bala nga ñu gis ñu ngeen Ngourane. Mm-hmm. mu maire Ngourane. Mm-hmm. Euh, maire bi Ngourane. Mm-hmm. ngeen bago fa voilà on a le chef lieu de la commune. c'est Ngourane. Euh, la mairie se trouve en Ngourane. mais bo gisee ñu déplacer wu comme ni yu bari dañoo xam ne comme ni ma la waxee sànq poste de santé bi c'est à Ngourane. le CMC à Ngourane. mais boo dee xool doom yi fay fajoo ak doomu commune Ngourane yi fay dem di jàngee. pratiquement boo génnee population Ngourane. dëkk yi gën a jege Ngourane moo tax parce que problème accessibilité problème yoon la am. moo tax maire ni comme que ñun géewul à chaque fois. jour chaque jour que jëfee. am na oto yoo xam ne dañuy jóge ci village yi. di dem géewul charrette yoo xam ne dañuy jóge ci village dem géewul pourquoi pas ñu installer un bureau secondaire. à Ngourane pour rendre plus accessible, si vous voulez, l'état civil, pour rendre plus accessible, si vous voulez, est-ce que, est-ce la Est-ce que ça japonais maire dafa xaw ragal wa nguraan comme seen adversaire lañu ñëm tuddu ci mairie ba motax mu bayyi leen ko fi leen ko daw ñew geewul non du question ragal tax mu def loolu mais dama yaakaar ne du question ragal xam nga ah. ragal hmm. maanaam mooy koo xam ne nii man hmm. na la gañ mas na la gañe ci terrain politique hmm. wala koo xam ne man na loo mënul mais ñun depuis bi la wax man depuis 2014 laa commencé ànd ak maire maire depuis 2009 il est là mais amul ben élection depuis 2009 pour xamné nous ñom gagné gañe nañu te boo le maire temps était dans l'opposition. en 2014 pratiquement 2012 il la venu au pouvoir avec la coalition Benno Bokk yakar te bi nek ci opposition mom da doon gagné mu au pouvoir continuer di gagner. kon ce que veut dire que ni moom amul lu par rapport ak nous? wa ñu ci emploi des jeunes voilà a euh, un ci li def ci emploi des jeunes ma ngi a un mu emploi des jeunes mm. Euh, comme ni ma ko waxee li activité mm. dans la commune c'est l'agriculture. Mm. agriculture. Mm. pour répondre aux besoins des populations. pour pousser les jeunes à rester sur place. et à travailler et éviter ce qu'on appelle l'exode rural. On a réussi à mettre sur pied huit fermes agricoles dans la commune. damay laal baaram. Ngay Mbisis Dia. nguraan Fall. Euh, nguraan wolof autant pour moi. Mm. Euh, gati ñang njaw njaw kër gumba mm. huit ferme agricole waaw ferme ferme agricole boobu da koy euh, tekk ci wolof pour ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu xam li nga lu mu noonu man mën nga ne ferme xam ne amu fa sax ñu dégg ferme yaakaar na loolu fekk amul voilà fa nangam a weddi loolu ne amul voilà très bien mm. ay tool la boo xam ne dana fa bay maanaam bay mbayum noor boo dee xool pratiquement am

Boungaye Diawar moo gën a accessible. Mm. parce que on a réussi à mettre sur pied. Mm. belle piste rurale. Mm. bo xamné ne relier na. Ngay Jawar ak Géoul de telle sorte que ni ñom buñ ñu récolté. facilement dañ ko mën indi sur le marché. mais aussi sun programme yi ñëw. ñi ngi envisager aussi d'autres pistes rurales. motax man la yoy daa ci ferme ferme Ngay Jawar bo boy xol mm-hmm. presque ay jeune liggéeyuñu ci li ci ëpp ay mag la. voilà ay ay jigéen ay jeeg ñoo ci nekk li ci ëpp. voilà xalé yi gisunu ko té li ñu lay wax moy lo xamné tay jappal ngeen ko ndaw ñi motax lay wax mais fi mu wax ci ferme bi ni bu ay mag rek ñoo fa nekk. non am na mag yu fay liggéey. Hmm. am na jigéen ñu fay liggéey mais aussi am na jeunes yu fay liggéey. ñaata jeune la ñuy jël yoo xam ne ñoom ñoo fay nekk. wax dëgg yàlla pour le moment man hmm. mënuma avancer des chiffres yoo xam ne que j'ai pas encore maîtrisé. Hmm. bëgguma la man lépp lu may wax rek. dama bëgg parce que man. kon kon kon kon man kon mënu mën sukkandiku say wax ne am na jeunes yu fa nekk. ndax bu fekkee yow yaa adjoint maire. ba pare nga taxaw ne ay jeune nga fa te xamuloo ñaata jeunes lañ fa def. kon kon ñu mënuñoo jàpp ne ay jeune nga fa. ay mag rek ñoo fa mën a nekk. mais li ma jàpp ak li ma gis man xam naa ne chaque jour damay jógee jokkul mm-hmm. jaar ngay pour ñëw géewul mm-hmm. mais xam naa ni il y a des jeunes qui travaillent mm-hmm. mais nag wax dëgg yàlla la nombre parce que man je ne fais pas de la politique politicienne man dama politique jaamu yàlla la kii jàngale man na ko def imam man na ko def moo tax lépp lu may wax rek man damay xool sama aqulaahu taala moo tax mënu ma la wax exactement le nombre de jeunes qui travaillent là-bas boo jëlee électrification rurale maa ngi ñëw au début bi ñu ñëw il y avait que quatre villages qui étaient électrifiés actuellement mm. on a réussi à électrifier 25 villages 25 mm. villages yene ko dox ci ñoko dox ñoko dox ba 25 villages en mm. dehors de ces 25 villages actuellement mm. yeneen village yi dess pour wonel la manam du tiagane ñu lu ni ñu xoc jëgël suñu jëmele suñu parce que 25 villages yi ma wax ni dekk bu mu dekk muy jokul fall juddo fa yaro fa dekk fa amul courant te pourtant on a réussi à si vous déposer ce projet ba sénégal accepter nañ bientôt inshallah rabbi li ñu bien avant les élections mm. bu yàlla sottalee mbir yi mm. ba jokku leen ko électrifier mm. électrifier Cekkeen électrifier Kër Gumba électrifié dëkk yi nekk foofu yëpp pratiquement ndax ndax as loolu waxoo ko pour campagne rek pour gëlëmal leen pour nañ leen bàyyi ngeen toogaat ndax ndax ba fi nekkee ba léegi ñooñu amuñu courant ngeen bëgg a des li des ci élection yi rek ngeen bëgg mën dañ leen dañ leen di voilà ñun euh, ndax loolu du du du da koy campagne rek voilà man li ma la wax sànq man je ne fais pas de promesse parce que seen nga 2014 bi ñuy campagne dama ne woon maire on va essayer si vous voulez de dire de dire quelque chose à la population dëkk bu ñu dem. ñu ne nañ leen def ni am ñu ne nañ leen def li nañ leen def li nañ leen def li ma ko maire man buñ ñu non man je ne vais pas battre campagne parce que nit ñi ay gor lañ. mëno ñëw na leen dina leen defal li bo lëggee nga dem ba sa mandat jeex gisuñu ñu lool motax mieux vaut nga déglu jeunesse bi. nga déglu euh, présidente parent d'élève présidente qui famille. nga déglu chef de village mu wax nga recenser yoy c'est à part de cela. nga bind sa programme bop motax man mané tax luma la wax. inshallah rabbi wax deug yalla buñ ci amul won de l'assurance pure et dure. wax deug yalla duñ ko wax. waaw waaw ñu gis seen adversaire ki nga xamne ne moom Cheikh Ngourane. fan yi ngi gis muy muy yëngu. Mhm. ne ci terrain bi mel lu xew. dafa xew sax mën nañu dafa xew sax. Mhm. Mhm. ndax ndax ndax amul lu mu def ci yeen xam xamu leen a tiital ndax maire gis nañ léegi génnatul dara de. dafay xaw a rek ndax waji limi jaar ci kawam. voilà merci ken kaddu nga mëna a génn nga la a merci Alpha. ñu nekk nañ bo xamne ni nii. yëngal yombul. parce que en réalité. kooku nga tuddu parce que moi je ne veux pas citer de nom. Hmm. avant ndax ko ko. non non pas parce que man bëgguma wax nit lo xam nekku fa. Hmm. Euh, kooku kooku nga non. Hmm. avant 2012. il était au pouvoir. nous on était dans l'opposition. Et pourtant élection bu fi def. ñoko gagné. a ñu dem bo nek au pouvoir. Mom il était dans l'opposition au début. par la suite mu transhumé dem ci Fada. par la suite à la fin mu dem ci euh, mu créer un mouvement pour le président. ñun wax dëgg yàlla ñun kooku du kooku moom moo ñu tiital mm-hmm. franchement tiitatul leen non mënuñoo tiital mënuñoo yëngal ci benn côté mm-hmm. amul ci benn village boo xam ne nii mm-hmm. mënuñu yëngal même dans son village d'origine ñun mënuñoo yëngal voilà ndax ndax mun lay gis ngi gis jeunes yi fan yi ni ko jeunes yi wuy jee ak li meeting bi nga xam ne rek kii bi nga xam ne sargal bi nga xam def na ko mm-hmm. euh, barki démb ci mm-hmm. kiir mm-hmm. ne ko def ci seen ci seen wàllu politique bi euh, boo bëggee xam koo xam ne moo leen gën a jege état bi koo xam ne moo leen gën a jege euh, rak président nekk ak moom voilà ëpp leen ay moyens nga ne tiitalu leen ñun nga gën ñoo ci li ngeen di ci li ngeen di politique ñun gën ñoo jege rak président mm. ñun loolu mënuñu tiital lu tax parce que ñun jege ak président. Mm. ñun jege population moo ñu ko gënal. entre nous mm. parce que ñun suñu population. Mm. heure bu ñu soxla gis ñu. heure bu ñu amee problème. ñun ñoo fay jiitu. heure bu ñu amee loo xam ne ni yittewoo nañ ko. ñu daan def le tout pour jéem ko satisfaire. léegi nag xam nga woote yomb na. a chaque fois boo wootee comme que jeunes pratiquement mbay mi wàññeeku nañ. ku woote ñu wuy si la. ku woote nit ñi déplacé wu dem. mais ñun dañoo comme ni ma la waxee sànq dañoo toll ci pro période boo xam ne période boo xam ne pour liggéey la. Mm-hmm. mais bis bu ñu tollee ci période politique. Mm-hmm. danañ wàcc sur le terrain politique. Mm-hmm. te ñun moom wër nañu ko. ñun suñ convoi wala suñu si voulez ñi ni àndal. xajuñu sax ci xaajaatu xaajaatu xaajaatu si voulez. par rapport ak ay manifestation waaw sargal sargal bi ñu ko def keroog. barki démb sargal bi. ndax gis nga ne eh, mérito na sargal boobu. ci ci ci yéete ngeen bokk gox. voilà ndax gis nga ne mérito na sargal. loolu aussi euh, man du ma ci wax parce que. en réalité en réalité n'avais pas fait le déplacement. waaw comme tout le monde. Je mm. ko félicité. Mm. voilà parce que man suis mm. nga lu la commune. bu la commune de sargal man la sargal sargal. voilà moo je man wax dëgg yàlla. ku organise une manifestation. je sais pas faire le déplacement. bu ma sañoon je ne peux pas piper mot mm-hmm. dedans. mais mais mais comme yaay adjoint maire. Mm-hmm. te gis nga li ñu koy mm-hmm. nga xam ne mooy seen mooy seen commune. te kon war ngaa teg war nga teg bët lu mu fa def. kon tey bu ñu ko sargalee war nga ànd ak sargal bi rafetlu loolu. Ah. ndax ndax li muy def moom moom moom moom moom yéen la koy defal. voilà personnellement. Mm. wax dëgg yàlla man mënuma teg baaraam ne lii ak lii ak lii ak lii moo ko def. Mm. franchement. gisuma ko gisuma ko franchement. Mm. dama wax loo xam ne nii mënu ma la wax ni léeg léeg léeg lii moo ko fa def. Mm. wax dëgg yàlla. kon sargal sargal bi daal mérité wu ko. ah man de j'ai pas fait déplacement. sargal bi kon loo xam ne moom mérité wu ko ndax liggéeyul dara ci ci ci fi nga xam ne moom mooy commune Ngourane bañ koy sargal. voilà léegi ñi àndal. Mm. jàpp na ni moom mérité na sargal ba organiser sargal. man mi nga xam ne ànd ak man. invité wu gisuma lu mu def. Mhm. wax dëgg yàlla man mënu ma dem sargal mënu ma wax ci sargalu jàmbur. kon jàppoo ne jàppoo sargal mérito na ko rek. man daal mënu ci wax sargal jàmbur. Mhm. samay nekku ci. Mhm. wax dëgg yàlla. j'ai pas fait le déplacement pas invité. mais entre nous. mënu ma la wax ni wax dëgg yàlla gis naa loo xam ne def na ko. waaw ñu jaar sargal gisuma ko. waaw ñu gis ne yéen a ngi jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, élection yi ba léegi ñu nekk ci. ngeen ne ngeen war cee nekk war koo waajal. ngeen gis ne moom it mi ngi yëngu. di di di di di wane boppam. Mhm. côté bu nekk. Mhm. tey tey tey yéen euh, bu ngeen doon euh, dénk bu ngeen doon tàllal li nga xam ne askan wi seen loxo. Mhm. tey euh, seen projet yoo xam ne yéen ko naal. pour pour pour tey bu ngeen ci jëmee. ne askan wi bu ngeen bu ngeen ñu dénkee lii lañ fas yéenee def. lan lan ngañ ci mën a leeral. voilà merci Alpha. Mm. xam nga comme ni ma la ko waxee woon. Mm. dañoo établir benn programme. Mm. programme boobu pratiquement il y mais projet yooyu ci biir. Mm-hmm. am na yoo xam ne réalisé nañ ko. Mm-hmm. am na yoo xam ni peut-être moins, yi. Mm-hmm. ak euh, temps bi mooy ñu woon pour ñu réaliser ko. comme yooyu yi nga xam ne envisagé nañ ko def incha allah. bu population bi. amaatee confiance renouveler leur confiance. sur notre modeste personne. incha allah rabbi en matière d'éducation. comme que sax dama la limal ay dëkk yoo xam ne nii on a réussi à mettre sur pied des murs de clôture. am na yeneen dëkk yoo xam ne nii ci commune bi lañ bokk te yooyu aussi war nañ ko clôturer. Mm. boo dee xool muy école euh, Palen boobu. Mm. école Loyen la. Mm. école Xaaji Gueye ak école Massar Sey. pratiquement yooyu moo ñu desee pour ñu mën ko clôturer. ensuite euh, ñi ngi envisager aussi. y a un village Kër Gumba Kër Càmba. ñoom ñi ngi dox. di waxtaan ak waa inspection. pour xam nan lañ mën a def pour implanter fa ben école mm-hmm. pour que jeunes aussi mën a comme mm-hmm. faut aussi envisager nañ aussi pour mettre sur pied trois salles de classe au moins pour nous commencer pour jàng euh, boo jëlee ci éducation ci santé sans nee naa la poste de santé bi dafa à l'extrême léegi ñun envisagé aussi pour mettre sur pied un poste de santé au milieu au cœur si vous voulez de la commune dans ce cas population au lieu que ñu déplacer, nous dans ce cas, même pas 2 km, même pas 3 km, ils peuvent se déplacer maintenant pour venir facilement au niveau de la commune, pour faire du fof. Voilà. Mm. Ensuite, euh, amna cas santé aussi, on ko réhabiliter. Mm. Parce que amna cas santé nek dans la commune. On mm. ko réhabiliter, équiper aussi. Moi, comme cas santé bu Tchekien, cas santé bu Loyel, ak bu gens... parce que ay cas santé yoo xam ne defar nañ ko pare. mais war nañ ko équiper. am na yoo aussi peut-être xaw na a ñu réhabilité waat ko. ci comme ni ma la comme que ñun bay la ñuy Et euh, si vous voulez sàmm. bëgg aussi construire benn château d'eau. de 150 mètres carrés. Baqay Jaay. étendre aussi les réseaux d'adduction d'eau village yi nga le ni peut-être comme ay Cëlbati. ay Mérina Tall Mbarom, Ngouraan etc., cetera ñu supposons affaire yi ba mu gën bari foofu. ba nit une même amul ferme agricole nous dana mën a bay seen voilà waaw léegi ñu ngi wax ne ñu ngi jëm ci li nga xam ne moom mooy njeexantal bi émission bi ñu ngi may signalé li ñu dese ci ñu gis ne li ëpp ci askan wi jàmbat mhm. euh, dañ naan Maodo mhm. euh, ñàkk jàng gi moo tax ak mhm. projet amul ci dëkk bi gis nañ ba mu téye ba léegi amul benn projet bu dugg ci dëkk bi Cheikh Ngourane jàng na am na diplôme am na relation bi am am na tamit euh, mën-mën beeg yooyu ndax ndax loolu du andi tay problème ci sen euh, li nga xamne mom mo nek ndax xalé yi mm-hmm. yaw nañ léegi mm-hmm. xam nañ li nga xam moy deug deug réalité léegi mm-hmm. li nit ñi di dundu ndax loolu di indi jafé jafé ci sen digënté voilà euh, euh, merci beaucoup euh modo jangul loolu lu ñu nangul la mais bo jëlé en matière de gouvernance locale yalla xam na ni man mi nga xam ni j'ai fait bac plus 6 mom lim ci xam man xamuko ci en matière de gouvernance locale nan la ni gérer une commune ensuite même bu jangul woon ñi top ci ginaawam ak ñi gens. ak mom ñele ñu leena xam nañ exactement ce qui se passe. maintenant tout à l'heure je suis économiste de formation. xam sais exactement comment mettre sur pied un projet. Je sais exactement comment évaluer un projet. xam sais exactement comment faire pour acquérir si vous voulez des partenaires. mom bu jangul ñi seuss ci ginnaawam ñëpp jang des bu qui matière gouvernance locale te xam nga lan moy leader. moy quelqu'un qui a le sens de l'écoute ku mën a ku teey koo xam ni en réalité fu muy teg tànkam lu la wax tay bu subaa moom la lay wax. Mm-hmm. ak ak ku mën a am ay partenaire mën a di andi. voilà te gis nañu loolu loolu ci Cheikh Ngourane la ko nit ñi gëna a tib tibb andi gi. dama ni partenariat partenariat dans les communes rurales. Mm-hmm. partenariat fi nekk yépp mm-hmm. lima la wax sank li ñuy recherché. tout simplement moy souf nee naa la sank Maodo. bu nangul non liko partenaire yi proposé. entre Kelle Diom. jëm Kër Moukhari et cetera et cetera sur la route national. Mm-hmm. au nom de Dieu il un multimilliardaire. Moi des partenaires. Mm-hmm. parce que la réalisation du n'est mm-hmm. pas uniquement par les moyens de la mairie. parce que boo mairie bi. mairie en réalité marché. marche. mairie pratiquement à part la taxe rurale. pratiquement population cadre voilà euh, le cadre remercier di rafetlu invitation bi. Mm-hmm. di leen wax ni aussi euh, maanaam projet yi nga xam ne ni moom lañ nar pour commune Ngourane. Mm-hmm. dama commencé liste rek peut-être temps bi mooy ko mooy. Mm-hmm. pour mu continuer yeneen projet yi. parce que am na yoo xam ne xalaat nañ ko ci jeunesse sport bi. xalaat nañ ko ci environnement ak cadre de vie. ak ci agriculture bi ak élevage ak commerce bi. mais loolu lépp peut-être xëy na temps mooñ ko mayoon pour ñu mu eggale. di leen remercier ci invitation bi. di leen wax ni encore une fois moi, nous sommes encore jeunes. Je suis derrière le candidat Maudou Diop. Mm Et pour que Mouler Tchibopolini, mm mm-hmm. il est candidat à mm-hmm. sa propre succession. Maudou Diop. Dans le candidat. Dans le candidat. Inch'Allah Rabbi. te ñi ngi ñaan yàlla may ñu ndam comme ñu ko daan maye maa ngi jégalu ñëpp ci yi peut-être euh,

tay man ngeen invité ko xamné il est dans l'opposition. opposition. Mm. ëllëg ngeen andi ko xamné ni si vous voulez il est au pouvoir. Mm. uniquement pour équilibrer pour wan ne yéen fi kenn mm. vous travaillez si vous voulez pour la population. maa ngi remercier. di len sante di len euh, encore une fois. di ñaanal yalla sama candidat. monsieur Maodo Diop. Yalla nako ko jappalé yalla mm-hmm. yàlla may sun jort ban dugg ci élection yi di ñëw ci bismillah rahmaani rahiim gën ci alhamdoulillah rabbil alamin ah merci jërëjëf As ngeen déggoon kooku mooy As di nekk euh, maire di adjoint maire euh, Ngourane di nga xam ne moom mooy Maodo Diop. Mm-hmm. tey ñu dalaloon ko fii ci Gueoulart TV ñu ngi leen di jaajëfal di remercier képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan Gueoulart TV di leen wax ba ngeen bëggee seetaan émission bi da di tàppee Gueoulart TV laal cloche bi abonné mën a seetaan li nga xam ne mooy émission bi. ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ku mel Aline Barra moo nekk ci wàllu technique bi ne ñoom la àndal di Aline Barra Wade nekk ci technique bi ne bu ma ko tudd macha allah di liggéey lu mucc di liggéey lu mucc mm. yi nga xam ne ñoo jàpp ci Gueoul Art TV ku mel ne Mansour Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ku mel ne Mbacke Dieng ñu ngi lay jaajëfal bu baax a di koo xam ne rek yaa ngi nekk bitim réew di xaar li nga xam ne mooy émission gindi askan bi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi Gueoul di ñaan yàlla mbas mi ne ci réew mi yal na ko fi yàlla jëlee di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi nekk Gueoul ak li wër nguraan yépp tey seen doom lañ dalaloon fii ci Gueoul Art di la ñaanal nga ne ci jàmm ne ci jàmm ak salaam di leen jox dig dajaw benn yoon incha allah ngeen jëf